laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah muhammadu rasulullah asalaamaaleykum mbokki biir réew mi mbokki bitim réew bu ngeen gisee sunu toogaay bu jekk bi ngeen xam ne am na lu réew lu xew Serigne Bamba Dior jànkatu xasida bu mag mooy amal bis boo xamante ne nii at mu jot da koo baaxoo amal Serigne Bamba nee na mu ngi ci woo képp koo xamante ne nii yaa ngi wax ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah bis ba nag mi ngi yemoog le 21 juillet xam nga ni bis boobu bis bu mag la ci réew mi ñu nekk di Sénégal waaye kenn la tuddi bis ba nag soxna Baali Muntaxa jàmbaari jigéen ji tubaar fa kàlla masallaa jigéen ji nga xam ni jigéen ju mën góor la soxna Baali lu góor lu su xëyee def ko mën na koo def ci guddi gi boroom juddu bu rëy bi soxna Baali Muntaxa sëriñ Kàbbaali Yaasin bu mu ngi daan dee calaw gànkal biram gunju damel maa joor ma xureju kuli ma sàmba takko damel dañu amari ngoone sabel borom kajoor ak bawal waaye soxna baali sëriñ son yi bu soxna ma jaxate soxna jëng si la libaas joor si la libaas faat si la libaas libaas ma paate ndumbi jëng càmmiñal kumba daaro ma paateeg ma ñaaw aram sàll yaasin njaay mataar saafara ka man mi ci taw yu baax yi waaye nag kan la ko dippe kan mooy parrain bi sëriñ mouhamed sàmb soldaaru sëriñ touba mi nga xamante ni boo nee soldat xel yëpp dem ci sëriñ Mohamed Samb seexul asraar bi fajkatu aajo bi jàmbaari sëriñ Touba ji doomi alaaji Moodu Mbay Samb ji nga xamante ni nii nee naa ko ba ab leetar jóge woon bitim réew ñu ne nañ ko yot soldaaru sëriñ Touba ca Sénégal bu ñëwee du jaawale kenn ndax boo nee soldaaru sëriñ Touba rek xel yëpp ci yow lay dem jàmbaari sëriñ Touba ji waaye nag sëriñ Bamba nee na moo ngi ciy woon ñëpp sëriñ Bamba nee na bis bii képp ku koy lebal ci nga koy lebal waaye képp ku koy fay tamit ci nga koy fay bor ko defee nag ñu jox Serigne Dàmmaar mi nga xamante ni moog sëriñ Bamba ñoo bokk Serigne Jéeri mu wax ci kàddu mbokki taalib yi nga xamante ni ñoom la bokkal Serigne Jéeri Serigne Dàmmaar bismillah. bisu Serigne Bamba nag nga xam ne léppam Serigne Jéeri Waadaan la léppam Serigne Touba la Bamba moom boo ko bëggee yënga rek tuddal waxal dara ci Serigne Touba wala nga wax ci Serigne Jéeri Waadaan dara kon mu mel ne man mii nga xam ne yàlla dogal na yëkkati na kàddu gi. jox ma ko ma di ko wéele ci waa Kër Jéeri su may wax ci waa Kër Jéeri ñoom ñëpp kenn ku ne xam na lii seen i ak lii seenu bàkk bu doon ñaari kàddu dama ko ci yëkkati muy erub Sëñ Jéeri waa daan sugu bi laa laa hay إلا الله لا إله إلا الله سقول لا إلا الله waaw bis baa ngoog bis bi nag ñoo ngi koy yëgal sunu yaakaar tey ak ëllëg muy Serigne Makhtar Sougou xalifa Wadane Sougou xalifa Cheikh Jéeri Wadane Sougou ñu ngi ko koy yëgal ci ndigalul kan Serigne Bamba Ndiaye man nag damaa mënewul baax war na seexul xaddim maa ngi koy tuub bu baax a baax lii ñu ma jox nii man tudd yàlla rek laa man waaye nag sëñ Bamba mii day jëmm joo nga xam ne bisam ah bu ñëwee mu jox ma kàdd gi na ma yëgal ko waa kër sëñ Jéeri Wadane Sougou il faut ma yëgal ko waa kër sëñ Jéeri sëriñ Maxtaar Sugu ñu ngi ko yëgal xalifa Cheikh Jéeri Waane Sugu ñoo ngi ko yëgal sëriñ Maxtaar euh, sëriñ Bamba Sugu xalifa Cheikh Ahmadou Tafri Sugu ñoo ngi ko yëgal sëriñ Jëmb Sugu xalifa sëñ Bamba Joor ñoo ngi ko yëgal sëriñ Jaal Sugu xalifa sëñ Daam Joor ñoo ngi ko yëgal sëriñ sëriñ Fàll Sugu xalifa sëriñ Daam Joor moom it sëñ Daam Sugu ñoo leen ko yëgal ñëpp daal ñoo ngi leen ko yëg képp koo xam ne daal yaakaar nga waadaan wala nga bokk waadaan ñoo ngi yëgal ñoo ngi la yëgal bis bi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal bamba nga xam ne si guddi ak bëccëg fun geesoo gis ko ci ginnaawam ñooñu ñëpp ñu ngi leen ko yëgal bis ba daal nan teel a ñëw te buñ ñëwet insha allah ndi ko bamba bëggee nan ko defee noonu wasalaam ñoo ngi mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu ngeen déggee suñu kàddu gis suñu jëmm xam ne bis bu mag bu rëy moom la ñuy waajal boobu bis mooy bisu ban bisub sëriñ Touba waaye kan moo koy woote alaaji Bamba Joor xasaayit moom Serigne Jéeri Wadaan Sougou mooy delloo njukkal ak a sant Serigne Touba Xaadim Rasuul mu koy amal kañ buñ tabaskee ba am fukki fan alaaji bàmba moom ci sëriñ bi lay xëy ci sëriñ bi lay gontu doyoon na sëkk waaye nag xam ne Bamba moom rek moo fi ne moo waral mu wooteel ko ab bis ngir bëgg a dimbali taalibe Sëriñ Touba yi bis bi nag ni mu ko baaxoo amale rek noonu la koy amalee dara sensé wu ci di ko yëgal jàngalekati alxuraan yi yi nga xamee ne ñoom ñoo ko daan ànd ak moom ca bu nu xëyee danañ fa amal njàng alxuraan di ko woo di yëpp rek yi nekk Touba Alieu ak ñi nga xamee ne ñooy ay soppeem ñi nga xamee ne dañ koo bëgg ngir sëñ Touba ñii nekk Touba ñii nekk Dakar ñii nekk Thiès ñii nekk Louga fu ne nit a nga fa nekk di bëggee sëriñ bamba jur xasaayit sëriñ bamba nee na bis bii mi ngi la cey woo di ci woo ñi nga xamee ne ñoom la bokkal ahlu xasaayit sëriñ bamba mi ngi woo képp koo xam ne yaa ngi yëkkati xasida yi sëñ yi te bokk ak moom liggéey bi muy def yëkkati xasida yi sëñ ak ñi nga xamee ne ñooy durus xasida yi sëñ tubaa yi sëriñ bamba nee na mi ngi leen di woo ci bis bii sëriñ bàmba mi ngi woo dëkkandoom yi nga xamee ne ñoom la dëkkal nee na fàttewu leen ci bis bii mi ngi leen ciy woo ndax kat saa bu masaan ñëw ñëpp lu ñu jàppoon danañ ko bàyyi ñëw ànd ak moom bis bii sëriñ Bamba daal bàyyiwut kenn bàyyiwut fenn bàyyiwut ñenn nee na képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah daal sëñ Bamba nee mi ngi lay woo ci bis bii ndax bisub sëñ Touba la sëñ Bamba nag wàcc na kon bu nu woowee ci liggéeyub sëñ tubaa kenn ku nekk loo jàppoon war nga ko bàyyi ñëw ànd ko ak moom kon ñu ngi tuub bu baax te jéggulu di wax ne ku dajut bamba dajoo ku dajut bamba la nga daj aw doj la wun la dij ba sa bisub dëj nu boole leen dij alaaji bamba jërëjëf ñoo ngi eh, jégalu bu baax di feeñal yéene ci bisub seex sëñ bamba joor bii nga xam ne sant seexul xadim la da sant gi day mel ne kon ñun ñi la koy defal ndax ñu ñi nga xam ne suñuy maam ak suñuy wayjur dañoo jaayante woon ci sëñ Tuubaa te ba ñuy jaayante kat dara waralu ko jël jël seen seen lépp jox ko sëñ Touba ta ñu ngi ciy jiital di tàmbalee waa kër suñu Cheikh Adama Gueye teg ci waa kër Cheikh Ibrahima sëñ euh, sëriñ mbay Ndiaye gol bi ak sëñ ak sëñ euh, Mouhamadou Dem ak mboolem Cheikh ci nga xam ne ñoo sukkoon jaay ñoo sukkoon ci kanam kanamu ron suñ Touba jaayante di ko def di ko di jokk loolu nag ci ci kër Serigne Djili Wadane Sougou ji nga xam ne moom moom lañuy la fekk si ndax. day mel ne sëñ Bàmba li mu woote ñoon la ko wootee la waaye nag ci biir keppaaru sëñ Jiili la ko ko wootee te bu ko wootee sëñ Tuubaa kat li mu doon defar defar bëggoon ñun ci suñu biir ñu doon ñu doon ñu lëkkaloo doon wenn say di xàccandoo di dóorandoo moo taxoon mu mu mu doon doxee noonu loolu nag ci lañ amoon yéene di ci woo mboolem koo xam ne sukk nga jaayante jiital euh, cheikh sépp cheikh ko képp koo xam ne daal da sukkoon jaayante te ba ngay jaayante da ngaa wax ne joxe naa sama bopp àddina ak alaaxira ñoo ngi lay woo ci lii Euh, ndax euh, señ bàmb kat amul lu señ tuba ak xasida yi te señ tuba ak yi kep ku ko japp mam sàkket wi la wara a wi la wi la war a dëgëral seex la wara don kon nak ñun ñi nga xamne day mëna bis bi ñun la ko defal ño ngi top ci ginaawam fasiyene ko gungé ko ci bis bi tamal ko ci alhamdullahi rabbil alamin tamal ko bismillahir rahmanir rahim agal agal ko alhamdullahi rabbil alamin sëriñ Cheikh Abdou gey setu sëriñ Cheikh Adama gey bi tubarkàlla kaddu yi amna solo lol woo nga mboolem ñi nga bokkal sëriñ Touba kon sëriñ Bamba bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn waaye nag dana jël kàddu gi jox ko ki nga xamante nii mooy sëriñ ji li pëfti mu teewal fi nag soxna Baali Muntaxa di mbokkam ñu bokk lépp kon moom la ñuy jox kàddu gi mu wax ci tuuru soxna Baali Muntaxa mi nga xamante nii moom la ñu dippe bis bi sëriñ ji li kàddu gàngoog ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi kër gi ñu nekk tey muy kër sëñ jiiri waa daan sugg mi xam ne ñoo la bés bi tey nag dañ fee teew teewaayu euh, soxna Bali Muntaxa euh, mu sëriñ Soyibu euh, jàmbaari Poroxaan tey nag dañ fee teew teewaayam ci doomam xaritam soppeem muy Ahmadou bàmba Joor mi di nit ku baax wax dëgg yàlla loolu lañu soxna si wax ne ñu day nit koo xam ne bi mu day jàng ci soxna si soxna si ne ko yow fekk fondation bi taxaw soxna si ne ko yaay jàngkat fondation bi euh, euh, guddi gàmmu man la yónni man la woo ma ko mu ne ma daa mel ne maa ngi ci ay programme man soxna si moo nañ la woo nga ñëw jàng euh, kon loolu lépp rek li muy wane mooy soxna si def na ko ne boppam soxna Baali moom ni ko ni ko sa waaju ji di waxee maamun mi ngi gis ñëpp waaye taxul muy wax ak ñëpp di nit koo xam ne wax dëgg yàllam di nit ku baax di jigéen joo xam ne da doon sàkku ngërëm am na ko ndax ab sëriñam mokk ko seedeel loolu yëpp ak sant yàlla waaye ci bis bii ñu jëm rek mu leen di wax ne bis yi ñu koy tuddee bari na waaye bis bi bokk na ci bis yi ko gën a ñor ndax ba day nit ku yaru ba mu ko gisee ba tey ni mu ko gisee rek noonu la ko gisee. Eh, boolewaat maa moom ne ma bis bi bu ñëwee na ngaa dem ca bis ba woote ko te nga woote ko ci mbooleem taalibe yëpp mbooleem soppee yi soxna Baali Muntaxa fépp fu ñu nekk ci adduna bi wala koo xam ne da sopp soxna Baali ngir yàlla jëmmi suñ Tuubaa ñu ngi lay woo ci bis bi di la wax ne soxna si nee ne eh, daayira soxna jaara yëpp yi aju ci soxna Baali Muntaxa nee na mi ngi leen di woo ci bisub sëñ Bamba Joor bi mm-hmm. kon nee na yéen waa soppeem yëpp mm-hmm. ak taalibeem yëpp mm-hmm. na ngeen xam ne ak ñi mu àndal liggéey bi sëñ Tuubaa bi na ngeen xam ne Bamba mi ci moom la bokk kon mu ngi woote bis bi moom ci tuuru soxna Bali la ñuy waxee nee na daal fépp waaye mën a nekk muy ci biir réew mi ak bitim réew fu waaye mën a nekk rek ci àdduna bi te la fa nga nekk la fa ne sëñ Tuubaa ko fa def mi ngi lay woo ci bisub suñ Bàmba Joor bi bis bi daal bokk na ci bis yi ko gën a ñor bis yi ñu koy tudde bari na waaye bis bi daal bokk na ci bis yi ko gën a ñor ndax dañoo génn tey bii ci guddi mu woowaat ma ne ma li ma la waxoon ci bisub Bàmba Joor mbaa jàppoo ne dama la ko wax rek daal di lay bàyyi noonu ma daal di eneer laa jóge soow daal di ñëw ngir bisu suñ avant première suñ Bàmba kon boog loolu lépp rek li muy wane mooy sopp ak jàpp ak yi la ko jàppee buñ ko tëbaskee ba noppi la incha allah muy la 21 yaakaar na le 21 juillet kon bis bi ñu ngi ci woo ñëpp di ci xaar ñëpp suñ Mohamed nag na nga xam ne soxna si nee ne bis bi bis yi ñu lay tuddee di leen ko boole bari na waaye bis bi day bis boo xam ne day bisu boppam nee na bis boo daan def fukk bii na ci def ñaar fukk kon ñu ngi leen sant bu baax te di leen gërëm te xam ne woote bii nag woote bi suñ Mohamed woote soxna si ak wooteeb suñu Maamet laa boole woote ko si <laughs> jërëjëf tabaarakallah jërëjëf. jërëjëf Serigne Abdul Qadir ci kàddu yi am solo yooyu kon tubaarkàlla kàddu yi am na solo waaye Serigne Bamba nee na moom kat xam nga ni dafa international dafa am ay soppe ci biir réew mi nekk Sénégal waaye am ko ci bitim réew nee na mi ngi woo diaspora bi yëpp bàyyil waa Mauritanie bàyyil waa Mali bàyyil waa Guinée. bayul wa itali bayul fenn ci réew mi ndax kat serigne Bamba mom bisam bi xelam mën na dal ndax kat bu mag bam way serigne touba dani def ko serigne ak waxtani ay mbiram jafewul waye mu def la waayam ak nawlo nawloo sa mbir jafena motax moo tax beug la ndax sa mën li ngay def ndax sa selal yi motax bo wote kala ah bisi mën naa waye ku teew ci bisba dina xamni serigne Bamba jor mi liggéeyal na sëriñ te serigne touba nanguna na bi Sering Bamba neena mo ngi wo serigne Cheikh Say mum serigne abdullah Lahad yi serigne Bamba neena mi ngi wo serigne cheikhuna Sidi moom sëriñ Sidi moom Seydou Laat Marema Jaxate Gaynde yolor gi sering Bamba neena mi ngi wo serigne Mamor mum serigne Modou bu sa jeng waye neena mi ngi koy yegal nak bayam serigne Modou Kara Noreyni ni diko jaar ci buntam Seydina Ousmane ni borom bax mi nga xamni barki demb rek fi la yandu ci keer waa kër sëriñ Mbaye bi yi nga xamanteni ni sun doon rek du neex a ndax ku jaaxle seen xel ci ñoom lay dem kon sëriñ Serigne Bamba bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn. mbokk yi bis baa ngoog ndigal laa ngoog lu dul ndigal nag amul njariñ te kat xamal ni ab sëriñ du bëgg nit ba jël njariñ jox ko ci topp ndigalam kon mbokk yi bis baa ngoog wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. laa ilaaha illallah. muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bëgg publicité ngeen bëgg annonce avant première ngeen am cant bëgg mu siiw jàppale ni Ndiaye Pro barab bii di barabu communication di si ànd ak Xaadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation si wàllu audiovisuel contacte leen Xaadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote leen gaaw si xarañ liggéey bu tegu fi temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc